danwar li nek ci dekk bi ko wax mom sa maam saytu du ami top manam yeen da ngeen gis ño xamni dañuy gis place ndox ñu sekk ko dekk fa ndax bëgg lu yom te lool yeen ko yóbbee seen bop yeen wa maire bi ci bopam yeen wara war li ngeen def da ngeen dem fekk place ndox ngeen sekk ko normal wul bëti ko jaayaat nit ñi te bu ñëw di ñaxtu. ngeen téye seen bopp te xam ngeen ni foofu ñu dëkk palaasu ndox la te mag ña daan nañ wax naan ndox kat du bàyyi yoonam loolu laa laaj loolu fan ngeen ko teg te ngeen xam ne foofu noonu palaasu ndox la woon loolu fan ngeen ko teg. tey yow bu ñu demee di la jaay bureau bi nga xam si ni lii palaasu ndox la nga xam ne lii palaasu ndox la lan moo tax jënd ndax bëgg lu yomb bëgg lu yomb moo la ko yóbbee. wala lan yéen bu ñu bëggee lu yomb kon yéen noonu leen def bu ñu jëloon sa loxo ni ko duut sa taal est-ce que di nga ko nangu. ma ne loo leen rax lu ne lo leen tëgg lu leen rax ci përëm yaa deg mais xam ngeen li ngeen def yeen affaire de nar féq la nan ngeen ni jele fo xamni place ndox la ngeen sekk ko ngir nan alalu aduna di jaay néew di doole te do leen ko jaay yeen do leen ko jaay ñi am de néew di doole yi ngeen koy jaay sama sar gi mais yow néew doole bo boo ni li ni place ndox la carrément yaa deg legi ñu ñew di lako jaay yow manam yow euh, nuñ ko mëna sax prix boo xam si nii yow lii yenewul maanaa ak bureau bii nii léegi nga xam ne lii palaasu ndox la lan moo tax nga ñëw di ko jënd pour bëgg lu yomb la wala man loolu laa la laaj. lan lay ñëwoo ci lan moo tax ñu ne maire yi. Ah. maanaam maire pour defar sa koñ la defar sa gox. yaa ngi dégg defar sa gox bu weesu nga fekk ah, benn benn benn benn place boo xam si ni maanaam ay kii la quoi nga sëkk ko ba mu normal nga jaay ko defar sa sa gox. mënul weesu loolu bu ñu nee maire yi maire yi mère manam, dafa doon lo xamni mhm. manam, tay ji ni manam bo nek mère bu nek ci koñ koñ ba mu nek manam lepp lu fa wara bax da wara war ci mom yaa deg tay ji nan ngay xolé place ndox nga sekk ko normal wëlbati ko ko jaayaat gaa maanaam doole wala di ko jaayaat jaamu yalla yi xam nga da nga xamni fe place ndox la léegi bu ëllëgee sun borom bu tawé ndox ma nek fa. ñu koy ñattu ngeen xim baña wax ta xam li xew. laa xamul loolu mooy ndayu lan. loolu laa bëgg a xam. mun naa laa laaj le lenn léegi léegi yow palaasu ndox léegi buñ ko sëkkul def ko kër jaay ko léegi yow lan nga jëm bëgg ñu bàyyi ko mu nekk palaasu ndox ba kañ. daa mel ni yow da nga maa déggul ak ma laa dégg. léegi yow nga xam ne foofu palaasu ndox la te bu suñu borom tawee te suñu borom mi kay il force day taw ndoxam mii mënoo ko téye force day taw mu leer yow bu tawee ña jaay kër ga. duñ am fu nu dëkk léegi yow ñoom ñi ñaxtu nga ne xiim sa place su nga toog bañ a wax loolu laa xamul lan la loolu laa bëgg nga leeralal ma ko. ba tey déggoo ma de palaasu ndox bi da nga bëgg ñu bàyyi ko mu nekk palaasu ndox ba faaw wala duñ ko sëkk pour jaay ko wala lan ba tey yow man a yow déggoon te xam naa boo moytu dina ñafante fii ay mbëkk. noo doo ma ñëf mbëkk. waaw non damay déglu bu baax su ma waxee. <laughs> Ah, waaw li ma déglu nga di met li ma ma met du ma neex waaw waaw li ma li ma met du ma mës a neex ndax xam nga tax maanaam mhm. su fekkee nit da nga koy ëpp doo ëpp ko rek ëpp ko door di ko wan rek maanaam ñun ñun duñ avancé quoi ñun Sénégal duñ ko quoi maanaam dëgg bu la ko waxee da nga koy dégg nga jëfe ko da ngaa nanguwul dégg lu ma la wax moo tax ma ne yow du ñu juboo dañuy réeroo da ngay jaar ndar ma jaar ndaxaaru Sénégal da ngay dégg li ma la wax ma ne Sénégal bu doon ko jaay trois cent cinquante du ko jënd da am jëkkam du ma ko jënd tooy da am jëkkam nga naan ay trois cent cinquante xamul tax maanaam naar fekk gi nekk ci Sénégal moo metti ay yow na ngay jëlee place ndox place ndox ci boppam sëkk ko ba mu normal di ko jaay mbindeef yi te bu tawee ah suñ borom moom moom taw bi te buy taw du tàggoo bu tawee nga xam ne yow carrément ñee dañuy am ndox léegi ñoom bu ñu ñaxtu nga ne xim sa ruq dana wax loolu ak naar fekk la